temps ma nekk seen TV paa bi ñëw di def émission man ma dajeeg paa bi ñëw di ko nuyu mu ma tee sa loxo ba ma nuyu dara ci biir nit ñi te man mm. defuma ko dara wala waxuma ko dara mais peut-être gis na ma si télé sama xar kanam neexu wala dara ci imagine bi ma toroxalee. ma ñëw di ko ñu daje. Mm-hmm. ma ñëw di ko jox ñaari loxo mu ne ma teel da ci kanamu nit ñi. Mhm. waxuma ko dara. yàlla def toog nañ 6 mois ñu daje benn bërëb bi ñu daje fo benn sëriñ a foofu toog ak ay kilifa yooyu. Mhm. mu ñëw fekk ba ma toog mu ñëw di nuyoo bu mu ñëwee ba di ma jox loxo man ne ko teel sa loxo. ndax dama réew paa bi ma ah la sëñ bi woo ma ne ma Cheikh Omar lal la ma tàng man ne ko góor gi man ku ma joxul cër mënu ma laa jox cër. Mhm. donc nañu joxante cër. même sa doom sax da ko war a jox cër. maintenant pour Adama Gaye il faut qu'il assume ses responsabilités mm-hmm. et assumer mooy boo toogee ci penc mi wax li ngay wax na nga ko assumer parce que ñaari mbir moo fi am Adama Gaye il est pensée unique moom déjà compte Facebook am kenn du ci wax <laughs> mba am ñëpp la bloqué donc su demee Facebook ne day live xaw ma kan moo koy tontu donc déjà c'est un problème xam naa père boo jógee fii <laughs> nag ma débloqué man ak sama copain Alioune Badara Fall ensuite Eh, nga gis ni moom kàddu yi mu woon ne ci mbirum Azer bi Abbas Fall da ci encaissé cinq milliards ah, Adama Gaye moo ko wax noonu mhm. bi mu ko waxee Abbas Fall dem porte plainte cybercriminalité waaye mbir maa ngi ci yoon pour ñun ñu xam du dëgg mhm. mais nag boo porté accusation si nit war nga indi preuve parce que la preuve incombe à l'accusateur Adama il fait une déclaration pour dire que moom day génn Sénégal. Mhm. parce que tout simplement euh, dëkku dictature lañ nekk. nangam sangam. Mhm. après bi mu demaatee pour man si tu portes des accusations tu dois avoir le courage de les assumer. waaw ah, oui. première chose après il mhm. na ko yàlla yërëm. Euh, lu bëri umpale nañ xam Sénégal nag il faut nga génn àdduna. pour ñu mën a wax say baax baax. Mm-hmm. réew moom noonu lañu yàlla bindee. Mm-hmm. man ci laa gis sax sama benn mag euh, Mamadou Thierno Talla mu bind lu daw suma yaram mu ne moom gëj na jooyee nit ñi ñi bàyyam génne àdduna 1987. parce que ñoom ay promotionnaire lañ fële ca Prytanée militaire nekk enfant troupe donc déjà le fait que mu jaar Prytanée militaire. Mm-hmm. def un parcours académique et puis servir dëkkam état wu Sénégal pendant plus de trente ans. veut dire que. la a été au service quand même de la République. Mhm. et de l'État du Sénégal. Euh, koo xam ne bi muy dugg ci direction budgétaire depuis 1994. Mhm. te ñëpp nangul ko ni homme d'État la te mën na liggéeyam du rek mhm. maintenant nit bu faatoo au moins baax na sax ñu permettre ay mbokkam ñu mën a def seen dëj observer seen dëj par respect pour la mémoire de la personne. déjà que amoon na coow parce que justice dugg na ci. ay si ñëw na procureur ne nañu xool mbir mi jël ko dénk ko dig pour mu def enquête par respect sax pour pour loolu sax war na tax nga xam ni kii am na ay mbokk am na njaboot ñu am naqar ba pare nga ñëwaat yëkkatiwaat yeneen kàddu di ko ci dolli nañ ko bàyyi mu noppalu ci wetu ay maamam maa ba ba fële ca Nioro te ñu ñaanal ko mais mu nga toog ne dañ ko faat dañ ko bóom te yow nga ne xam nga ñi ko boom waaw mais boo ko waxee duñ la woo yow. waaw léegi yow ñu woo la nga naan maa ngi woo xalif généraux wala kilifa yi bi bi ngay def sa wax sa ñoom bi da tàggu kilifa yi. waaw mais non nañ waxante dëgg. ay amnistie bi ngay def sa ñoom da ngaa tàggu amnistie. ah ma ngi noonu nag. d'accord donc donc pour man liberté d'expression am na. mais sa s'accompagne de responsabilité c'est-à-dire moi je suis là micro est ouvert je en direct. Mhm. est-ce que tey war naa jóg ci micro rek ma mere nit rek wala ma am dara ma toog fii wax lu ma neex. bu ma woowee suba ma naan ko non maa ngi tàng xalifa diina yi il faut que tamit nit ñi ci penc mi qu'on aussi responsable. Mhm. et malheureusement aussi médias yi dimbali wuñu parce que culture médiocrité la ñuy promouvoir. d'accord woykat bu nekk léegi am nga sa saagakat je donne des exemples parfaits. Mhm. booy pël boobu moo fi doon wër di saaga Wally Seck parce que beneen woykat la nekk. Mhm. ba ñu mujj ko tëj ci kaso. même ci làmb ji léegi sax booy xool face to face da ngay gis Siteu am na ku koy waxal Modou Lo am na ku koy waxal. Mhm. est-ce que yaa may dégg. donc même jaaykatu saabu jaaykatu xeesal sax dañuy saagante léegi média yi loolu la ñuy génnee. Mhm. maam Ndiaye Savon lii la wax kii gis naa si benn booy bu xaw a dugg sax moom it mu nga ca. comprend comprendre mu quoi grand. Mhm. ñun ñun daal borom xam-xam kenn du ko tekk Souleymane Bachir Diagne. philosophe du ñëw ñu waxtaanee ko. xam nga ndongo Samba Sylla xam nga. dama koy dégg rek. bi muy nekk étudiant la nekk champion du monde champion du monde d'escrave deux fois double champion du monde d'escrave économiste. <laughs> économiste maanaam ci Afrique kenn mënu ko. àdduna dañ ko ràññee mais <laughs> ndongo bu ma koy doon fii kenn xamu ko peut-être. <laughs> déedéet parce que nekkul waaw dañu nekk réew moo xam ni naw ñu xam-xam. xamal lu ñu naw médiocrité. saaga wax bu ñaaw. loolu rek la ñuy wane. on ne montre que ça léegi nag ñun ñoo war a am fulla ku nekk nga filtrer man y a des choses je regarde billaay yu bari mu ngi xew nii dañ ma koy hmm. nettali ma kon lii xew na fi lan laa dégg fan yi xaw ma jabaru woykat bi diw nee na xaw ma beneen tiktokeuse bi lii mooy faram lii après man je dis nit ñi si loolu lañ toll quoi esprit sous développement non esprit sous développement. Mm-hmm. comment tu peux rester des heures pour écouter des comme raconte des conneries quoi entre nous. oui woykat bi ki moo nekkoon jabaram jabaram bi nee na xaw ma fecc ko tudd sabar bi xaw ma ki nekk si TikTok nañ saagante kii di saag kii ñu naan kii ñii la man man après ma ne. vraiment état d'esprit boobu. Mhm. su ñuy wax lan la ñuy wax topp kaa kaañu kaa man après ma vraiment. loolu moo intéresse Sénégal yi. mais non c'est-à-dire mindset boobu la ñu war a dindi. Mm-hmm. ñi développé amuñu jot topp kaa de ñoom xam la ñu mm-hmm. <laughs> topp. topp xëy. topp dépense dërëm bi topp dërëm topp mm-hmm. développement. time is money foofu la àdduna bi toll mais nag léegi wax bu ñaaw mooy génn ci. waaw ah alors euh, Yoro Dia aussi moom nee na dafa gis ni benn état bu total euh, totalitaire. Ah, boo xam ni dictature de la pensée unique lay def ak yooyu yi demee noonu ah, police de la pensée et de l'opinion après arrestation Moustapha Diakhaté ak aadama gay naka nga jàngate les propos de de d'un journaliste comme comme Yoro Dia. Yoro Dia moi le qualifie pas de journaliste de communication de Macky les gens étaient en train de hmm. fan la nekkoon. kenn dégg ko de. ah mi ngi woon ci Macky kenn dégg. bi Macky Sall jëlee sunu élection présidentielle. aj ko ajaat ko ajji ko. Mhm. Yoro Dia fan la nekkoon. waay ah. kenn dégg ko bi Macky Sall jëlee xalifa saal teg ko si kaso bi pour bañ mu nekk candidat Yoro Dia mhm. fu mu nekkoon. kenn dégg ko Sénégal gi. bi Karim Wade nekkee candidat Macky Sall jël ko tëj ko si kaso bi ne ko doo bokk élection Yoro Dia fu mu nekkoon. bu Ousmane Sonko nekkee candidat. jiite opposition Macky Sall tëj ko ci kaso bi. xañ ko carte électeur ne ko doo nekk candidat fan la fan la Yoro Dia nekkoon. Yoro Dia était en train de suivre ses intérêts. oui Yoro Dia était en train moom moo nekkoon ak Macky Sall kon aujourd'hui il n'a pas de leçon à nous donner je suis désolé je suis désolé c'est une plume périmée kan moo koy lire arrêté waay. sëñ bi bu leen sonal <laughs> non ku waxul dëgg wax leneen. non daa am ñoo xamante ni amatuñ crédibilité boobu. Mhm. qu'est-ce qu'ils vont me dire maintenant partisanerie lay def partisanerie lay def. Mhm. ñoom bokk mbuus mu ko neexee dafa défendre c'est son problème. quand les Sénégalais se faisaient tuer comme des mouches est-ce que Yoro Dia a écrit est-ce qu'il a parlé est-ce qu'il a dénoncé. non alors il n'a qu'à se taire taisez-vous voilà. <laughs> alors euh, euh, beneen ministre boo xam ne aussi dañ ko un ex ministre bu ñu arrêté euh, Samuel Sarr bi nekk actionnaire aussi ci West Africa Energy bi may courant bi jaayee courant Sénélec dañ ko arrêté bi mu jógee Dubaï ci benn voyage d'affaires dañ koy tuumaal ci détournement de fonds waxoon na aussi ni bu élection yi jàllee convocation yi du ñu bëri ndax li fi nekk ci ay plant ak nangam daf bëri naka ngay jàngatee yenn ci woyofal bi courant ñëw ci sa plaidoirie boobu mais. non dafa desee bokk moo tax ma dugalal la ko ci. waay waay am na am na. corrélation donc euh, yoon day def liggéeyam. bu fekkee ni tuumaal nañ la ñu tuumaal ko nii.